gis info Sénégal ngir mën a am bépp xibaar bu nga bës cloche de wa rahmatullah mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéenay déglu sunu chaîne bi tey nag dañoo fas yéene ñëw ci histoire waaye histoire CEDEAO lay doon CEDEAO ku ne yàgg na koo dégg mu nekk fukki réew. ak juróom-benn yoo xamante ni ay réewu Afrique soo jant lan ñoo booloo créer CEDEAO CEDEAO moomu nag mu am rol boo xamante ni da koy jouer ci mbirum justice ak économique bu Afrique de l'Ouest réew yooyu nag mooy Sénégal Mali Burkina Niger Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Guinée-Bissau Togo Bénin nigeria cap vert gambi ghana liberia togo ak sierra leone réew yi ñoom ñooy réewu cdao fan yële wala ñaari at yu dégg yi ñiin génn yépp dañuy gis ne problème mali ba ca la commencé woon waa cdao daal di embargo mali ci coup d'état ba fa amoon lekk duggul lekk génnut xaalis bi circulé wul ndax loolu jaar na yoon wala jaarlu yoon ci kanam danañ ci xam dara ñu defaat ko Burkina def ko ki nga xamante ni itam moom mooy Niger fan yi ba léegi ñoom ñu ngi ci waaw lan moo tax ay réewu Afrique yu bokk benn xeet nga xam ne boo demee biir Gambie da nga fa fekk ay wolof fekk fa ay joolaa fekk fa ay mandang soo ñëwee Sénégal nga fekk fi la même chose bës boo demee Nigéria danga fa fekk ay pël fekk fa ay awusa fekk fa ay ay yoruba ñooñu tey nga ñëwaat biir Niger fekk fa ay pël fekk fa ay awusa kon lan moo tax ay peuple yu bokk benn xeet seeni njiit bëgg parfois di songante ba nar cee def sax li nga xam ne mooy guerre li newoon CEDEAO li waroon a am fan yi diggante Niger ak waa CEDEAO loolu nag pour nu xam ko

te géej dafa yaatu duñu xam fan lañ jëm ba noonu la ñuy deewee ci géej gi biñ découvrir nag li nga xamante ni moom mooy busol ak gouvernail ak caravelle nga xam ne dafay permettre ñu mën a voyager facilement tubaab bi nag ne léegi dañuy fexe découvrir nag suuf su bees ba xam am na ci àdduna bi biñ demee ci den découvrir Amérique en 1492 ki nga xamante ni moom mooy Christophe Colomb moom moo découvrir Amérique

te lan moo leen fa yóbbu ñoom ñooñu fa nekk mooy dafa am ay tubaab ay anglais ay français ay espagnol ñoom ñëpp ñoom ñoo ñëw fekk fa ñi nga xam ne ñoom ñooy les indiens biñ leen fa fekkee daal leen di rey ñoom ñëpp rey ci ñu bëree bari ñoom installé wu kon loolu moo sos Amérique biñ installé woo nag ba créé nag am fa seeni tool yooyu yëpp mais tool yooyu ñu gis ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy indiens yi mënuñu faa nekk parce que dëgëruñu waaye ñu ne kon léegi war nañoo soxla ñoo xamante ni ñoo nekkal suñu tool yi tubaab yi nag proposé leen ne leen am na ay nit ñuul ñu nekk Afrique mën nañ ko indi loolu mooy le commerce triangulaire foofu la commencé nag li ko commencé mille quatre cent cinquante ba mille huit cent soixante neuf nga xam ne ñetti téeméeri at ak nangam commerce boobu njaayam jaam moom diire na ko nga xamante ni lu ci ay. lu ci toll ne ay téeméeri million doomu aadama ay jul ay ay ay ay africain jële nañ leen Afrique yóbbu leen Amérique ñu ci bëri dee ci biir océan bi ñu ci bëri àgguñu ñu ci bëri ñiy àgg lan la leen fa daan doye mooy européens yi dañuy ñëw fi nga xamante ni mooy Afrique suñu ñëwee Afrique dañuy indaale ay pakatu yi pakatu yi boo ko déggee mooy lu amul njariñ lu mel na seetu wala alcool wala sax barre de fer daal koy jox suñu maam ñi ñooñu daal leen jox ay nit ay nit góor ñu taxaw dëgër ak jigéen ñu rafet jox leen ko bu ko defee ñoom tubaab bi jël loolu yóbbu ko Amérique jaay ko fa suñ ko fa jaayee ba pare daal di ñoom jënd nag li nga xam ne mooy suukar ak coton ak tabac nga xam ne loolu amul biir euh, Europe bu ko defee ñu daal ko fay yóbbu jaayaat ko fa ñëwaat Afrique indiwaat ay seetu ak alcool ñëw jaayaat ko suñu maam yi daal di jëlaat ay esclave ay nit yóbbuwaat fa nga xamante ni moom mooy Amérique noonu lañ koy doxalee commerce boobu nag daal di ay ñetti téeméeri at ak nangam bu commerce boobu durer loolu nga xamante ni ay jun ay millions comme nu ma la ko waxee ay cent et quelques millions seen bakkan des na ci. mu am nag ay conséquences yu bari kon li yóbbu noir yi biir Amérique lii mu leen fa commerce bii ma wax nii am ay noir lii moo am ay conséquences conséquence bi am Afrique mooy dépeuplement daa tax population Afrique wàññeeku indi pauvreté te mooy ndóol ndax dëkk boo fa demee jël jël fa ña ëpp xam-xam su boobaa dëkk boobu da koy wàññi kon suñu pauvreté gii ñu nekkee ñun Afrique li ñu ko njëkk a teg moom mooy ñetti téeméeri at ak nangam yi nga xamante nii naqar la bu ñu teg ci ñun kon lii moo ñu jur ñun Afrique suñu povreté ak misère gi nga xamante ni moom lañ nekkee waaye nag boobu commerce am na lum jur Europe mooy da leen a jural recherche waaye tam am na lu mu jural Amérique da leen a jural ñoom tam recherche ak peuplement. ndax boo fi njëlee jëlee fi lu toll ci cent et quelques doomu aadama yóbbu fa nga xamante ni moom mooy Amérique ñooñu dana seen population dana jóg ñun suñu population wàññeeku kon ndóol gi Afrique nekkee lenn rek moo nu ko teg mooy commerce triangulaire wala nga ne la traite négrière nga xam ne dañoo jël suñu mag ñi ñi ëpp xam-xam ëpp doole yóbbu leen fa nga xamante ni moom mooy Amérique jaay leen fa kon loolu bu jàllee. am na leneen loo xamante ni tam teguwaat na ci Afrique ba gën koo sonal waaye xeex boobu euh, euh, euh, traite négrière boobu nga dégg muy njaayam jaam ñooñu nga nga dégg jur na tamit xeex bu metti biir Amérique ndax Amérique juróom fukki réew la ak nangam ñoo booloo laata ñuy booloo noonu bay mat juróom fukk dafa am benn président bu ñuy tudde Abraham Lincoln bu toog daat ne dama bëgg njaay mi jaam mi jeex loolu moo indi woon guerre de sécession nga xamante ni guerre ba mi ngi commencé le 12 avril 1861 ba le 9 avril 1900 1865 guerre boobu nag américain yi mu nekk seen biir guerre civile ngir lan waa noor ñoom dañ ne dañuy bàyyi njaayum jaam waa sud bi nga xam ne pareeguñu te amuñu ay machine ñu ne ñu ne njaami njaami du fi du daq day continuer di am loolu jur geer seen biir guerre bu metti guerre boobu nag bi demee ba jeex mu ngi jeex euh, bi mu demee ba jeex mi ngi jeex en 1864 euh, ci lan euh, Amérique booloowaat nekk benn kon nga gis ne njaayum jaam mii mooy li nga xamante ni moo indi pauvreté ak misère ak dellu ginnaaw Afrique dellu ginnaaw goo xamante ni.

ci li nga xamante ni nag moom mooy la conférence de Berlin conférence de Berlin nag soo gisee Afrique nii ñu ko partagé def ko ay pàcc ay réew yu ndaw ndaw ndaw loolu ma nga xewe ca ko ca Berlin ci biir Allemagne européens yi woote fa daal di séddoo Afrique te benn africain africain teewul loolu nu mu demee woon ak lan moo ko waral ba ñu woote conférence loolu mooy suñu beneen euh, vidéo incha allah xam naa ñoo ngi yem foofu beneen yoon jërë ngeen jëf. gis info Sénégal ngir nga mën a am bépp xibaar bu fi bàyyeekoo aboneel te nga bës cloche de notification bi.